asalaamaaleykum mbokk internet Lune TV tey boo leen ma gisee fi ma toog nii ci pont bi nga xam ne moo nekk diggante Thiaroye ak Fallou Warga waaw tey nag comme ni leen ko daan defalee rek tey seen émission CAN 2024 bi la tey dañoo war a waxtaanee nag tamit aussi ci lu bari ci mat yi nga xam ni jot na fee jàll muy diggante Côte d'Ivoire le pays organisateur mom ak Guinée Bissau Côte d'Ivoire moko del 2-0 match bi nga xam aussi mo dox ci ak Guinée équatoriale ñom dañu def 1-1 match Égypte Mozambique dañu def 2-2 Ghana Cap Vert ñom aussi 2 2-1 le Cap Vert dóor ki nga xam moy Ghana match bi stop muy match Sénégal Gambie Sénégal mo do 3-0 ki nga xam moy Gambie Cameroun Guinée dañu nul 1-1 Algérie Angola ñoom tamit 1-1 Burkina Faso Mauritanie 1-0 pour Burkina Tunisie Namibie Namibie moo dóor ki nga xam ne mooy Tunisie 1-0 Mali Afrique du Sud Mali tamit dafa dóor Afrique du Sud 2-0. loolu lañ leen indiloon joxoon leen score match yi nga xam ne moo fi jotoon jàll en plus tamit ñi ngi jaale ki nga xam ni mooy Cheikhou Kouyaté mi nga xam waajuram bu góor dafa génn àdduna ñi ngi ko koy jaale di ñaanal waajuram bu góor boobu fi mu jëm yàlla ko gënal fi mu jógee yàlla ko yàlla suñu borom xare àjjana donc Zuberi topp ma ñu dugg. waxtaan a gars yi tam ci match yi fi jot a am li fi jot a jaar yëpp ci match ak match bi nga xam moom la ñuy entamé contre Cameroun ñu xool nan la ko gars yi gisee. grand bi maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax yaa ngi am sant bu baax tur beeg sant bi. man maa ngi tudd Younous Sadio. Younous Sadio. waaw waaw Younous Sadio tey dañoo ñëwoon rek pour waxtaan ak euh, yow ci Coupe d'Afrique bi naka nga ko gisee. tey gis nga Sénégal jàll na ci première mi euh, premier match contre Gambie donc il def ñu le ko 3-0 après war a entamé waat suñ deuxième match contre Cameroun bi nga xam nul la am ci match am a am un point ñun ñu am trois points Tay, lan nga gisee match contre Gambie ak nan nga gisee tamit nan lañ war a contre ñu Cameroun ñu Cameroun dëgg la match Sénégal contre Gambie bi franchement parler gars yi football nañ bu baax quoi classement bi gisoon nañ affaire yi na ci té buñu sañon sañoon tamit suñu prochain match contre Cameroun même classement bu ko coach ci mëna teg rek inshallah allah dinañ ci am ndam quoi. ci li ma foog. ci li nga foog waaw ci li mais yow sera nga match ñu nag Gambie bam jeex. waaw sera na gisoo ci ben faay parce que en général Sénégal bo xolé say jouer bon gars yi fekk ñi ngi gagné mhm. duñu gis faay mais suñu perte lañ lay expliquer ay faay et tout genre mais amul lenn lu ñu war a changer et tout mais yow ça va quoi. non man moom ça va man li ma match bi moom ah, mm. ça va Donc ça, am ça sax ay faay sax mais euh, taxut a feeñ noonu quoi. dëgg la taxut Ok. feeñ noonu. franchement bu ma sañoon même classement bi këcc bi taj ni mm-hmm. bu ko tajee contre Cameroun rek am naa ci yaakaar quoi. am nga ci yaakaar am ndam mais mais mais aussi Cameroun ak Gambie duñ benn. ñaari équipe yooyu nekk ñu benn de. non du ñu benn wax dëgg yàlla moom du ñu benn quoi mais nag ni ma gisee match bi moom ndam rek lañ ci am quoi. waaw mais seetaan nga Cameroun Guinée quand même. waaw euh, Cameroun Guinée tout laa ci seetaan parce que jour boobu dama bougé woon. ba may ñëw fekk presque fin temps bi laa seetaan rek. fin temps bi laa jot a xool tuuti image nii. mais yow li nga jot seetaan nan nga gisee Cameroun. waaw Cameroun tamit ah baax na de. Mhm. franchement baax na moom waaw. li ma jot a seetaan moom waaw. baax na baax parce que est ce que xam nga ni suñ deuxième match ñu ne Cameroun du yomb parce que Cameroun un point la am ñun ñu am trois points déjà donc Cameroun da ciy teg ba xanam pour jéem a am foofu point parce que moom même bu niilee mhm. après day dem daaxante ji troisième match am mhm. donc day jéem a essayer pour dóor Sénégal déjà féete woo quatre points wala bu munul am po bu bu demee bay ñaax mu wóor ko nii munul gagné Sénégal day samp niil moom. waaye parce que sinon bu ko Sénégal dóoree moom moom day toog. non ñun nag duñ ko seetaanee noonu. voilà duñ ko bëggee noonu nag. non c'est boo déggee moox loolu maanaam. Cameroun équipe bu mag la aussi. duñu ay cuune yàgg na ñëw Coupe d'Afrique yàgg na ko jël. donc ak match bi muy dajeek Sénégal te xam nga Cameroun ak Sénégal aussi tam du yomb. waaw c'est ça quoi. du yomb quoi Sénégal moom du yomb moom. ñoom mm-hmm. seen match en général boo xoolee sax musul yomb waaw musul yomb comme ñoom ñaar yëpp ay gaynde lañ ñii ay lion indomptable lañ ñii ay lion de la waaw <laughs> <laughs> kooku moom gis naa ni match boobu moom du yomb quoi mais nag ñun Sénégal nag xam franchement xam naa ni moom dinañ ci def suñu dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan quoi am ci ndam. ba am ci ndam quoi am ndam bi sax moom lañ bëgg ñun ñëpp. non moom la ñuy am sax. ndam rek la ñuy am. incha allah waaw. ok ku baax ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yi. merci beaucoup tam ci disponibilité bi ñu may ba tax ñu mën a toog ak yow di waxtaan. franchement guy man tamit maa leen di gërëm di leen sant. ku baax maa lay siyaar. ah yaa ngi am jàmm. naka yi tey. sant alhamdulilah lépp taw sant bi. Euh, Ahmed Tidiane Sy wa Ahmed Tidiane Sy tay dañ leena a seet si mhm. pour waxtaan ak yeen ci Coupe d'Afrique bi mhm. donc Sénégal entamé na premier match am contre Gambie euh yalla def ñu gagner Gambie 3-0 donc wara entamé waat suñu benen prochain match contre Cameroun Cameroun mi nga xamni 1 point la am ta xam nga ni ñu nag Cameroun match yoy du mës a yomb yow tay nan ngay lan nga gisé match contre Gambie bi ak tam lan nga ñuy wax ci match bi ñu war dem contre Cameroun euh bon maa ngi delloo ziare ñi seetaan nous match contre Gambie bi bon c'était une bonne match ça s'est très bien passé et ça s'est bien déroulé et kontaan nañ victoire aussi quoi te non rek na waroon demee te nous ñaan aussi ñu continuer prochain match yi ñu ñu gën a ñaaxaat ak joueurs pour nous faire face am fas jom vraiment contre Cameroun moom man moom yaakaar naa yaakaar naa ñu am ndam contre Cameroun instant ça, on a largement d'avantage donc, euh, match nul la victoire, ça nous arrange vraiment quoi. Voilà. Donc, euh, Aliou Cissé rek lañ war a pour mu gagner bon xool tactique am de jeu. Parce que match bi passé contre Gambie. Bon, bi ma gisee Abdou Diallo si milieu terrain bi bon moom neexuma woon trop. Voilà ba am ay carton jaune comme ça. Vraiment bon en tant que supporter laay wax de. Uh-huh. mais neexuma won quoi. Voilà donc euh, pas de six pas de six mu ngi woon ci euh, banc bi. Uh-huh. donc kok mom warul toog si banc bi quoi. kooku moo waroon euh, taxaw place kooku moo waroon euh, départ place euh, Abdou Diallo au lieu de Abdou Diallo Abdou Diallo c' est un latéral. Mhm. donc je pense un milieu terrain. Mhm. donc prochaine match boobu nañu tegal Pathé Cissé. car Cameroun moom. Mhm. c' vrai équipe boobu moom équipe bu baax la. équipe bu baax la mais nañ fas jom rek. bon am naa yaakaar nag vraiment quoi. incha allah mais tey boo xoolee ñu nag Gambie. gisoo ci faay tey ci match boobu noonu aussi à part comme li nga wax ci Abou Diallo mi nga xam ni moom nga gis que ni moom lañ yóbbu milieu terrain te warul woon dem milieu terrain d'après sa gis-gis en tant que supporter mais à part loolu xam nga Sénégal en général buñ gagné duñ gis faay ci équipe bi tey Gambie Cameroun du Gambie Cameroun équipe compétition la déjà balaa dara xew donte football nañu moom match amical ñu dóor ko. léegi moom lañ amaat Coupe d'Afrique suñ deuxième match moom am parce que Cameroun un point la am ñun ñu am trois points la koy teg ci baxanam te dañoo mën compétition. tey lan ngay gisee match boobu ak nan lañ ko war a entamer. ah match boobu moom du yomb parce que Cameroun déjà c'est un champion d'Afrique. Mhm. sam Cameroun jël na euh, ci coupe d'Afrique. coupe d'Afrique waaye donc euh, suñu suñu match ak Cameroun mooy gën a métti ko suñu match ak Gambie bi quoi uh-huh. ak ak Gambie euh, woon sax mais aussi day gën a métti parce que nañ match boobu moom nañ jàppe comme final. Uh-huh. parce que Cameroun moom c'est un bon équipe bu baax la. certes am nañ ay manques sax mais équipe bu baax la quoi. waaye uh-huh. ñun aussi moom. vraiment yor une équipe une équipe quoi ah on a confiance euh, aussi on a confiance ces joueurs aussi. donc man mom suis amna yakar dinañ poule bi mhm. Cameroun bon. bi c'est c'est un poule de mort quoi. poule bi moom mooy poule bu gëna parce que mhm. ay guiné ay Gambie mhm. bon day

Côte d'Ivoire moo ko organisé la jox code ne la Côte d'Ivoire. non non joxuñu ma ko. Guadié <laughs> moo la jox code bi. ko Sénégal joué na premier match am wala joué ko. joué na ko waaw moo moo Gambie ah. lañ dóor Gambie. 3 3 0. waaw donc ok 3 0 lañ dóor Gambie mooy suñu dëkkandoo yi. tey ñi ngi bokk ak ki nga xam ne mooy Cameroun. Gambie min gagné ak Guinée. te Cameroun ak Guinée joué nañ premier match ñoom ñu nul 1 yaa ngi dégg ñoom am nañ un point ñun ñu am te suñ suñ deuxième match actuellement nii vendredi lay nekk incha allah à 17h ñu ne nan ngay gisee match boobu. boobu du yomb day neex de. Hmm. mais Camara Camara yi ñoo moomaat bii bi rek. ñoo ko fay dolliwaat waaw. yow Camara nga sant. Camara laa sant waaw. kañ nga sant man bambara la. Fëri Camara laa tudd. est-ce Fëri Camara. mais mais mais est-ce que xam ma sa match yaa Cameroun du yomb. non du yomb moom du yomb mais dañ koy jaayante. parce que parce que Cameroun dafa mën compétition bien vrai que ni jeune nañu ak moom match amical gagné ko mais compétition du ko mën. waaw da koo mën moom mais xale yi am nañ doole. waaw am nañu rythme tamit. am nañu rythme waaw. yow daal am kontaan nga ci gars yi. kontaan naa si trop waaw. Mhm. kontaan naa si trop moom. macha allah ma drapeau Sénégal nu mu mel drapeau Sénégal vert jaune rouge drapeau Mali. ah boobu nag laa. xanaa xamoo ni drapeau Mali nga ma jox léegi. ah waaw. étoile bi laa fàtte. <laughs> merci soxna Pari ñu lay jaajëfal kàddu yi rafet na merci beaucoup. waaw ah, ok waaw merci beaucoup au revoir. soxna si noo maa ngi maa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bi. Kamsar Fati. Kamsar Fati Kamsar Fati gars yi nee nañu sa jëkkër joueur la de. ii góol bu mag la. ah góol la. ii góol bu mag la lu mu góolul baaxul. ba lu mu góolul baaxul. lu mu góolul baaxul kon yow mën naa waxtaan ak yow ci football kon. waaw ayca yaa ngi seetaan Coupe d'Afrique bi. waaw maa ngi koy ban dëkk ah, ay waay ay waay. sëñ sa jëkkër ji teg na la gàcce en tant que de but du joueur sa ngi xamul sax. xamul sax ban dëkk moo organisé coupe d'Afrique nee na Cameroun <laughs> Cameroun bi nga tudd moom la ñuy dajal deuxième match Côte d'Ivoire moo ko organisé. waaw seetaan nga match Sénégal Gambie. waaw seetaan naa ko. nan nga gisee match bi. match bi neex na classement bi jaari na yoon macha allah. Hmm. nañu weer mag ñi génne xale ñu football. ah yow daal noonu nga ko gisee barki Serigne Touba. yow daal na xale yi football rek. na xale yi football. bàyyi mag ñi xale yi football mag ñi toog ci versaire yi. kontaan naa waaw. Cheikhou Kouyaté tamit moom maa koy jaale waajuram bi génn àdduna tamit man ñoom rek laay topp man jour yi rek laay topp man ñoom rek laa am bàkki Serigne Touba gagné nañ suñu premier match contre Gambie léegi ñu ne Cameroun ñoo war a jouer deuxième match tey nan nga gisee match boobu ñu ne Cameroun ah match daal moom di wax Aliou Cissé nu mu defoon rek na ko defaat delloo buum ca booy mbooy ga rek mhm. chaque heure bu ne mu changé booy di dugal di remplaçant mag ñi ñu wéeru na le lii day doxal Sénégal loolu daal yow nga gis ndam rek daal yow da nga yow daal li nga gis mooy nañ duma nañ duma waaji rek nañ leen duma rek incha allah dinañ leen duma baax na léegi yow bu loolu weesoo sa jëkkër góol la sa jëkkër yow fan lay góolu sama jëkkër fu mu toj bëri na ah. toj na guy ga ah. toj na ndox mi ah. toj na cosaan hmm. moom daal fi mu toj bëri daal moom bëri na mais actuellement ni fan lay góolu ni actuellement ni dafa dem retraite ndax xam nga daa retraité ku am ku mel ni man boo ko amee doo góolu fi di góolu yow est-ce que <laughs> mais dafa mel ni sàng danga nga ma dafa am benn final bu am seen koñ fii nii ban final la final la ci diggante Farba mhm. ak cosaan far ba ak ciosan waaw est ce que yow ya ban gi nga far. man essence bi man maa ngi maa ngi ciosan yaa ngi cosaan waaw ta far ba tamit sama dëkk la deug fa neex yalla di ñaan yalla rek c'est le meilleur qui gagne rek. que le meilleur gagne. waaw ta ndam li mom deug fa neex yalla wa ciosan la ko yene franchement parler waaw kon kay ciosan nga faral. kon kay jaru nga nan que le meilleur gagne nel nel nel na ciosan gagne rek. na ciosan gagne. no vela no toj bop no san xer inshallah inshallah ndax damay dem xew tay ci ngoon bëgg mu diga salon toj sama bop kon kenn du toj sa bopp. loolu de lay ñaan non loolu jeex na ci rew mi inshallah inshallah kon tawfiq sa kaw ca kanam merci beaucoup soxna si Thank you.